moom dong moo ko yore te ci moom la nekk ba tax na mënuñu ko sàkkoo ci keneen wala ci neneen lu dul fa moom buur yàlla tabaraka wa taala ba tax na ñu koy talal suñu yoxo di ko ñaan di ko ne allahumma anta salaamun wa minka salaam ilayka yacuudu salaam fa xayinnaa bisalaam wa duxilna aljannata daaraka daaru salaam ñu ngi koy talal suñu yoxo di ko ne buur yàlla yow mi yore jàmm ñu ngi lay ñaan yàlla nga ñu may jàmm yàlla nga ñu dottil jàmm ya nekk ci yow ak xéwal yi ni mel ndax mboolem xéwal ya doomu aadama yi di sàkku nekkuñ ci kenn nekkuñu fenn fudut fa yow buur bi tabaraka wa ba tax na ñu ngi lay ñaan yàlla nga ñu dottil say xéewal yooyu ba tax na ñu lay ñaan yàlla nga ñu dottil say xéewal ya nga xamante ne du ñu jeex du ñu xaaj te nekkuñu ci kenn nekkuñu ci fenn fudut fa yow yàlla buur bi tabaraka wa taala waaye doy na rek ñu ne xéwal wu noonu nekk fa yàlla te ñu duñu xaaj duñu jeex mooy xéewal yam ñu xéewalal ci waxtu su néew ci ginnaaw ginnaaw bu ñu déggee noddkat bi di yëglu waxtu ba ñu war a am ak suñu boroom audience bu toll ni julli moo ne julli woowu de mooy la jokkale suñu boroom moo ne julli woowu de mooy la nga xamante ne mooy jaar suñu digganteeg suñu boroom te looloo tax buur yàlla bindiñu te ñu ngi ko doon joxe waxtu su néew ci ginnaaw ba tax na yooyu yëpp ay xeetu xéewal la yoo xamante ne buur yàlla tabaraka wa taala na ko jaami waaye rawatina xeetu sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa moo ne bokk na ci xéwal yooyu yàlla xéwalal doomu aadama yi mooy xéwalu nelaw buñ ne xéwalu nelaw nag ñu ne da di xéwal woo xamante ne amul kenn ku koy jaay waaye amul kenn ki ko mun a jënd tamit ndegem buur yàlla moo koy xéwalal jaami ndegem buur yàlla moo koy xéwalal mbindaafoon yi kon xéwal yooyu da di wi nga xamante ne yenentu bi nee na sallallahu alayhi wa sallam képp ku jëfandikoo xewal wi ni boo ci noppe danga nga war a sant buur bi tabaraka wa ci xewal yam la xewalal ba tax na mu dila la jàngale yow jullit bi yenentu bi sallallahu alayhi wa sallam mayal ci yow ngir mu jàngal diine bi ngay dund waaye mu leeralal la la tax yàlla bind la waaye mu di la xamal la tax nga nekk ci kaw suuf si su ko defee nga rootee nga jàngee nga manxi ci lala yonent bi di baaxee sallallahu alayhi wa sallam sa digganteek sa borom ñu nit ñu di si góor góorlu di si comp astuut andil ko mbokk auditeurs yi ci réew mi fm 97.5 ci waxtaanu fajar bi ñu war se ànd ak di fàttalantik yéen la nga xamante ne mooy la suñu yonent bi bàyyee xeet bi sallallahu alayhi wa waaye ñu tegtaloo si rekk xéewal yooyu yàlla xéewalal jaami te ñu di ko si sant bokk na ci xéewalu nelaw bañ doon def waxtu su néew ci ginnaaw yenent bi ne ñu képp ku ko yàlla xéewalal beng ci def astuut boo ci noppee danga nga war a yàlla ne ko alhamdulillahi alladi axyaana baada ma amatana wa ilayhi nushur moo ne mboolem xëytu cant yu kaw yi ñeel nañu yàlla nga xamante moo ma xéewalal nelaw bi ma nelaw nii ginnaaw si mu delloo ma sama ruux waaye nag ci moom yàlla lay dellu ba ma noppee ci dund bi kon ñu gis ci njeexantalu ñaan bi ñu ngi naan fa yàlla la ñuy dellu gannaaw bu ñu jeexalee dund bi kon yow jullit bi xéewal ba yàlla xéewalal di xéewalu nelaw sant nga ko ci te moo ne buur yàlla def ñu ne bu ngeen ma sante ci sama xéewal yama leen di xéewalal ma yokku leen ba tax na déggal nga ne yàlla mooy ki la faat ci nelaw ba nga doon nelaw ndax yégoo déggoo xamoo ginnaaw si mu delloo la sa ruux moo tax nga ne ko maa ngi sant yàlla buur bi nga xamante ne moo nam ci man dee bu ndaw te may nelaw ginnaaw si mu delloo ma sama ruux waaye nag ci moom yàlla lay dellu ginnaaw bu ma noppee ci dund bi mbokk yi bokk na ci xéewalu yàlla buur bi tabaraka wa taala fu ne nii kenn ku nekk ngi wax la mel ni la yàlla wàcce ci kaw asamaan si te moo ne mooy ndoxu taw boo xamante buur yàlla mu koy wax ci alquran ci ay bërib yu fasante ko moo doon xéewal ba mag ba nekk fa moom kon nañ leen bokk yëg ne ndoxu taw du musiba bay lor nit ñi nañ leen bokk xam ne ndoxu taw de lañu fa alquran tegtal wàccul ngir lor nit ñi nañ leen bokk xam ni ndoxu taw ba yàlla di wàccee ci kaw jawo ji mu di ko sóob ci suuf si objectif bi du inondation walla mu doon comme ni ko ñenn di joxoñ ñun amaana suñu xam-xamu doomu aadama suñu xam-xamu nite fala mën a toll loraange yañ siy loro moom la ñuy yuuxu dérangement bañ fay am moom la ñuy yuuxu waaye nag loolu du jubluwaayu ndoxu taw ba yàlla di sóob ci suuf si bu ñu demee xool ci téere alquran ba ñu yàlla wàccel ñu di ko nab nabi ci suñu dund wi te buur yàlla baaxee ko yonent bi sallallahu alayhi wa dinañu gis ci ay bërëb yu fasante ko yu nga xamante ni buur yàlla tabaraka wa taala ma doomu aadama ne dafa gaaw a saalit buur yàlla ngi nii di wax doomu aadama bi nga xamante ne mënuta dikku daray yàlla buur yàlla mu ngi nii di joxoñal doomu aadama bi loo xamante ne dakaa gis ne amaana la koy lorla la wala la koy déranger la ba tax na buur yàlla di dalal xelam di ko ne ndoxu taw ba may wàccee ci kaw suuf si xéewal la ñeel la yow doomu aadama bi waaye xéewal la tamit ñeel suuf si nga xamante ne fu ngay dund waaye xéewal la ñeel mboolem jur yi nga xamante ne yow doomu aadama bi yaa koy jëfandikoo kon nañu jël ndoxu taw bi bàyyi ko xel ci côté boobu tamit ñu bañ a gis ne ndoxu taw bi dafa ñëw ngir inondation walla mu inonde béréb ya ñu dëkkee wala mu nekk loraange bi nga xamante ne dañ koy dund bu di côté boobu dong la ñuy xool duñ xool weneen côté ba yàlla di wax ni ndoxu taw de maa koy wàccee mu doon xéewal ñeel leen moo tax wur yàlla ne ñëw ci béréb ju fasante ko ci alquran mu di ñu tegtal ne du ndoxu taw mooy wàccee boppam waaye man yàlla maa koy wàccee moo tax mu ne ñu alam tara anna allaha anzala min assamaa'i maa moo ne dalay wax yow doomu aadama bi waaye téere bi ci kiñ ko wàccee mooy suñu yenentu bi di ar rasulul mustapha alayhi afdalu salaatu wa aska taslima mbokk yi bur yàlla ne ñu alamtara tara xanaa gisu leen alam tara xanaa xamu leen yëgu leen alam ba xam gisuleen leen ne anna allaha naka yàlla allahu mooy yàlla buur bi nga xamante ne mooy allah anzala mooy buur bay wàcce mina sama ci kaw asamaan si ma an ndox xanaa gisuleen ne yàlla mooy buur bay wàccee ndox ci kaw asamaansi si aha gis nañ ko de yàlla bur yàlla bëgg ñoo wax ne nag léegi na ngeen déglu na ngeen bàyyi xel la tax ma joxoñal leen ne man yàlla may buur bay wàcce ndox ci kaw asamaan si du ñàkk mu am ci doomu aadama yi ñoo xamante ne dinañu war a mën a poser question ñuy laaj lu tax yàlla di wàccee ndox ci kaw asamaan si buur yàlla bëgg ñoo jox réponse bi ni mel aaya bi mu ngi suuratul xaj buñ demee xool suuratul xaj dinañ fa gis buur yàlla ne ñu baada audu billahi min ashaytaani rajim alam tara anna allaha anzala min alsamai maan fa tusbiha al muxtaratan inna allaha latifun xabir buur yàlla ne ñu alam tara xanaa gisuleen ne anna allaha naka yàlla anzala min alsamaai mooy buur bay wàccee ci kaw asaman maa an ndox xanaa gisuleen ne yàlla mooy buur bay wàccee ci kaw asamaan si ndox fa tusbiha ard bu ko wàccee ci kaw suuf si suuf si daldi meññ suuf si daldi naat moo tax mu ne fa tusbiha al ardu muxtaratan suuf si daldi vert su ci daal di joxe couleur yu verte yoo xamante ne foo sànni sa bët ay verture donc ngay gis yàlla ne inna allaha naka yàlla latifun ku ñeewent la ku am ñeewent la ci mbindaa foo ni waaye xabiirun ku supervise la nga xamante ne loolu lay wàccee la mbokk yi yann jàmme yàlla nekk ci yenn ak seeni njaboot bu ñu fi taxawee tuuti rekk xool dinañu gis ne lañu yàlla di wax ne xanaa gisuleen ne man yàlla may buur bay wàcce ndox jëli ko ci kaw asamaan si ma daldi ko sóob ci suuf si suuf si daldi verte suuf si bu verte dinga gis ne yow doomu aadama bi la nga ji ci ay xeetu meññeef dina daldi meññ su ko defee suñu mbokk béykat ñi daldi am contentement bu mag seeni xol ñu war a dem ci tool yi béy seeni gerte ñiy béy seeni ceeb ñiy béy seeni dugub ñiy béy la nga xamante ni mooy lañu wara a ci jamonoy nawet kon ndegem buur yàlla mooy kay wàcce ndox ci kaw asamaan si su ko defee suuf si daal naat suuf si daldi di verte béykat bi am lam ci béy mu boole la suuf si di dégager comme verdure waaye gàncax bi tamit daldi di meññ jur yu gàtt yeeg rab yeeg ñépp luy jëfandikoo xeetu gàncax yi dinañu daldi am lañuy dundu ci jamono bu yàlla buur bi tabaraka wa ndox ba suuf si daldi di kon bu ñu jëlee suñu xel dawal ko tuuti ci ci wet boobu wala ci wàllu woowu dinañu gis ne ndeke ndox ba yàlla di wàccee du pour mu doon luy inondé suñu dëkkuwaay waaye du inondation la yàlla namm ci ndoxu taw ba muy wàcce xanaa kañ dafa fekk ni rekk ci nammeelu yàlla lañuy ñuy fàggoo walla la ñuy loraange ba ñu ndoxu taw bi di lor waaye objectifu ndoxu taw ba yàlla di wàcce bokkul dara ak loraange ba ñuy dund ci ndoxu taw woowu ndax bu fekkente ne ndoxu taw ba yàlla di wàccee ci kaw asamaan si yàlla buur bi dafa namm ngir lorñu ci dañu koy wax daf ñu koy wax te su duñu mën dara ci loolu waaye ndekkete ndoxu taw ba yàlla di wàcce ci kaw asamaan si ça n'a rien ak ñun tey jii lañuy fëgg suñu gémmiñ di ko yuuxu na ndoxu taw bi inondé na béréb sàngam wala inondé nañu suñu dikkuwaay béréb sàngam naam mën na kaa doon mën na kaa nekk yàlla mën nañ ci war a mosal waaye nag bokkul ak la tax yàlla wàccee ndoxu taw bay wacc ci asamaan ndax aaya bi la ci tegtal ñu ne yàlla mooy buur bay wàccee ndoxu taw ci kaw asamaan si su ko defee suuf si daldi naat suuf si daldi di verte gàncax ji daldi di yow béykat bi la nga béy mu daal di manifesté naat boo ko góobee nga am lang nga dundu dund ba beneen nawet di dellusi kon yàlla ni inna allaha na ngeen xam ne buur yàlla di latifun ku am ñeewent la ci seen nekkin way xabiir yàlla mooy ki xam ndoxu taw bay wàcc bu wàccee ana la ngeen fay góobe comme la ngeen béy xabiir yàlla mooy buur bi xam ndoxu taw boobu mu di wàccee ana ñu siy loru wala ñu siy jëlee la di njariñ kon yow mi ci jëlee la njariñ ñaanal yàlla mu barkel la lang ci fàggu ci xeetu mbéy ci xeetu gàncax ci xeetu meññeef ya nga xamante ne moom nga góobee ci sa tool waaye yow mi yàlla nattu nga loru ci yow mi yàlla nattu nga am ci loraange tàllalal sa loxo yàlla mu teggila coono ba nga nekkee waaye noonu la ñuy tàllalee suñu loxo ak suñuy xol jëmmale ko ci autorité yi jëmmali ko ci borom barke yi jëmmali ko képp ku yàlla wërsëgal nga war a mun a taxawee ña yàlla namm ci ñoom ñu am jafeñ-jafeñ wala loraange ci ndoxu taw ba yàlla wàcce na ngeen bokk tàllal loxo jëmale seeni la leen yàlla wërsëgal ngeen gestul ñu mbokk wala njaboot ya yàlla natt si ñoom ñu am tolof tolof ci ndoxu taw ba leen fekk seen dikkuwaay ñuy sant di gërëm képp koo xamante ne dugal nga sa loxo jëmale ko ci xettali njaboot yàllooru ci ndoxu taw ba yàlla wàcce képp ku ci def dërëm yal na ko yalla wuutu la gën lang fa dugal ñuy sant di gërëm suñu maam ju baax di xalifatul am li taifatul muridiya cheikh Mouhamadul Muntaka Mbakke xafisahullahu wa raahu ci gëstu ba mu gëstu njabootu yàlla ñu yàlla nattoo ñu am jafeñ-jafeñ ci jamono bu yàlla tawee am lu am solo la mu jëflanteeg ñoom waaye noonu la ñuy sant suñu yaay ju baax jooju nga xamante ne moom lañu ñu dénk lépp loo xamante ne moo ngi nekk ci lay xettali njaboot yeeg way niw ñu doole ñi di suñu bàjjen ba yore buntu boobu ñu ngi koy sant di ko gërëm di ko ñaanal yàlla yan na yàlla yàggal fi yan na leen yàlla barkeel ndax bokk na ci kilifteef saa yoo gisee say njaboot yàlla teg leen nattu toll nii suñu mbokk ya loru ci ndox wi ngeen taxawee leen taxawee seeni wet xëytali leen won leen ne daal ñokk yéen ñooy bokk di dund la ngeen nekkee nii su ko defee ñoom it ñu am xel bu dal ñu am xol bu dal lu toll ni la gis lenn ci kilifa diine yi seeni wet wala ñu gis lañu yëg ne am na kilifa àddina ye leen taxawee taxawaay nga xamante ne mooy ya gouvernement bi taxawee ñalooru ci ndox bi kon loolu yépp da di loo xamante ni stratégie la luy seral xelu walla luy dalal xolu ci nekk ci tolof tolof kon ñu bokk gis ne ndekkite ndoxu taw ba yàlla di wàcce du jubluwaay bi mooy loraange ba doomu aadama bi di loru du loolu mooy jubluwaay bi waaye jubluwaay bi mooy na doomu aadama bi njëriñu ci ndoxu taw bi amaana dafa fekk ni rekk buur yàlla dogal ne ñooñu amaana buur yàlla moo leen fa jaarale ngir nattu leen waaye ngir nattu ñoo xamante ne ñoom it bu lii amee dinañu làmb ci seen gafaga am lañu génnee joxe ko ñooñu su ko defee mu doon programme ba yàlla di créer boppam waaye mu doon programme ba yàlla di tëggal boppam ndax aaya bi lay firndeel ne ndoxu taw ba yàlla di wàccee du lenn lu doomu aadama di amee jafeñ-jafeñ du lenn lu ci doomu aadama bi di lore aaya bi njeexantalu aaya bi wone na ko buur yàlla ne inna allaha naka yàlla de latifun ku am ñeewent la ci mbindaafonam yi waaye xabiir ki peek ndoxu taw boobu bu wàccee na mel waaw xabiir yàlla gën a xam ci njëriñu waaye xabiir yàlla gën a xam ku ci loru xabiir yàlla xam meññeef bu ciy baax waaye xabiir yàlla xam meññeef ju ci yàqu waaye xabiir yàlla xam ñan ñooy inondé ak ñu inondé ci la nga xamante ne mooy ci taw boobu kon mbokk yi ñu bokk gis ni buur yàlla tabaraka wa bi léegi bokk na ci xiiwalam yooyu ndoxu taw ba muy wàccee ngir doomu aadama yi di si war a mën a njëriñoo bi léegi buur yàlla tabaraka wa mu ngi nii duñu joxoñ te suratul fatir buur bi tabaraka wa mu di ñu wax ne alam tara anna allaha anzala min alsamaai maan fa axrajna bihi thamaratin muxtalifun muxtalifan alwaanuhu buur yàlla tabaraka wa taala mu di ñu wax ci suratul fatir bi léegi alam tara xanaa gisuleen xanaa xamuleen xanaa yëguleen ne anna allaha naka yàlla mooy buur bi nga xamante ne anzala mina samaa'i mooy wàccee ci kaw asamaan maa an ndox fa axrajna bihi mu di si génnee samaratin ay fruits mu di si génnee ay fruits yoo xamante ne muxtalifan alwaanuha muxtalifan alwaanuha xeetu fruits yi nga xamante ne couleur yi dañuy wuute waaye cafka tamit dañuy wuuti waaye melokaan yi dañuy wuuti cafkay kulóoru firiyu yooyu amul kenn ku koy jëfandiku ku doomu aadama bi te la tax nga di ko jëfandikoo moy ndoxu taw ba yàlla di wacce ci kaw asamaan si ngir mu daal di la arrosel fruit yi nga xamante ne danga koy jëfandikoo yii danga koy jaay nga jëfandikoo koppar wi yi da koy eh, jëfandikoo nga lekk ko mu doon meññeef yi nga xamante ne day développer sa croissance yow doomu aadama bi kon ñu bañ gis ndoxu taw ba yàlla di wàccee ci kaw asamaan si day doon lañuy ñuy lor walla la andil jafeñ-jafeñ la déedéet naam amaana ci coobare borom bi ak ci nammeelam loolu dina ci am waaye objectif bi dëggantaan réellement mooy lañu alquran di joxoñal ne loolu mooy sababu nuzulul ma min as-sama sabab ya tax yàlla wàccil ñu ndoxu taw jëlee ko ci asamaan si moo tax ci suratul fatir aaya bi buur yàlla tabaraka wa taala mbokk yi mu duñu wax ne alam tara anna allaha xanaa gisuleen ne yàlla mooy buur bi nga xamante ne anzala mooy wàcce min assamaa'i jilli ci kaw asamaan ma an ndox fa axrajana ñu di si génne bihi ci ndox boobu samaratin ay fruit ay meññeef yi nga xamante ne muxtalifan alwaanuha da ngay gis ne couleur yi dañuy wuti waaye na couleur yooyu wuute noonu la cafka yi wuute na cafka yi wuute noonu la melokaani yi wuute na melokaani yi wuute noonu ngay gisi ay wuute yu bari bari bari ci meññeef yooyu ci gàncax yooyu wala ci fruit yooyu fruit yooyu noonu nag amul kenn ku koy jëfandikoo ku dul yow ak man ak keneen doomu aadama yi ñooy bénéficié wu ci fruits yi nga xamante ne ci ay samaraat ay meññeef yoo xamante ne buur yàlla moo ñuy wàccel taw ngir ñu wara a meññee ci ndoxu taw woowu fruits yi doon yu wuute melokaan waaye yu wuute cafka waaye yu wuute mbindin buur yàlla mu wax ne ci aaya bokk na ci la tax ma di leen wàccal ndoxu taw ngir ngeen war see war a mën a fàggoo la nga xamante ne mooy xéewal yama leen defal ci ndoxu taw woowu kon ba léegi nañ leen bokk bàyyi xel ne ndoxu taw yàlla wàccewu ko ngir mu duñu ci lor wàccewu ko ngir ñu di si am jafeñ-jafeñ waaye xanaa kañ ci nàmmeelam ak ci coobareem loolu dinañu ci dal ñuy massawu ñu ci loru waaye jubluwaayu wàccee ndoxu taw jëlee ko ci asamaan si wàccee ko ci suuf si njëriñu doomu aadama dong la nañ leen ko sante yàlla ñu bañ ko gisee ne loraangi lañ ci am walla coono lañ ci am ñu gis ne loolu mooy la neex yàlla ñuy massawu ña ci loru ñu ngi dalal xel ña si am jafeñ-jafeñ ak kilifa ya dugal seeni loxo taxawee wetu ña amee loraange lañ si dugal yal leen yàlla barkeel la des ña ci loolu tamit yal na leen yàlla defal loolu mu doon jéggalaakoor ñeel seen diggante seeni borom yàlla mën na ko sañ na ko yal ko buur yàlla def ndoxu taw bi nag ñu ngi ñaan yàlla buur bi tabaraka wa taala di kon ne allahumma andil alayna alxays wala tajcalna min alqaanitin allahumma andil alayna alxays wala tajcalna min alqaanitin yàlla ñu yàlla may nawetum jàmm nawetum barke amin ya rabbal alamin mbokk yi waxtaan bi jeexut dañoo yegg si fu ñu war a yëkkati jotaay bi dara jébal béréb bi ñoo war a joxe xibaar ci nasaraan ñu ngi ñaan yàlla suñu borom tabaraka wa taala di ko ne allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha wa anta xayru man zakkaha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 wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu